mbokki Leewtoo TV ñoo nañ leen ziar leen tey nag gis ngeen ki ñu toogal Père la li waral waxtaan bi nag wala ñu bëgg wax ak moom fan yii dafa am loom ci làmb ji loo xam ne nii combat la bu ñu doon bëre yàlla ca dogal jamante am ca direct tour ba combat ba yëgul yaa ngi dégg amateur am la naqari promoteur ba ak noonu ba sax aj am ci Père Bécaye ginnaaw bi ñu leen ziar la jaajëfal la borom lay waaw Babacar man tam ma lay gën jëfal di la gërëm bu baax ci dalal gi ndax ak wax ak yow moom am na solo lool waaw dadi nag danoo bokk loo xamante ne ni saa wu xëyee moo nu tax di xëy moo nu tax di gont moo doon sunu liggéey dëgg la nag am na ay acteur yoo xamante ñoom ñooy sportif yi nekk ci diggu géew bi te buñ demee nag ci jamono ba ay acteur principal di yàq li tax ñu naan sport nag il est temps nag de réagir réaction bi mooy ko ci nekk xam sa bopp ñu fexe ba ku nekk xam li la tax a jóg ku nekk xam li tax ñuy woon nit ñi pour ñu ñu ñu seetaan xam nga mën nga di def dara doo xam yow li ngay def lan la mbër yi xamuñu sax lan moo tax nit ñi di dagg seen paas di ñëw di seetaan wala boog ñenn ci mbër yi xamuñu ko parce que buñ ko xamoon dinañ am discipline discipline boo déggee ñu koy wax nit yu mel ni moo ko waral nit day xam boppam xam ci li mu ne keroog li am ci arène bi te fekk na li lépp lu mu war a def ci lu war a tax mu baax am na fa parce que xam nga dañuy wax non amul ak sécurité non amul nii amul nii barrière bi dafa gàtt mur mur clôture bi dafa gàtt loolu yëpp jikkoon rek bu jikko baaxee rek loo xam bu xel baaxee bu nu defaree nit doo tëb barrière doo tëb doo burle doo def yenn yi mais nit dañ leen di waajal xam nga wax naa leen ko keroog chinois yi ñoo ko defar ci seen jikko lañ ko defaree ah keroog wax nga loolu yow waaw si seen dëgg la si seen jikko lañ ko defaree mais bu doon dañ koy defar suñu dëgg dëgg di mur bu mat ba pare def ci ay xottu butéel def ci pont ni ku fi ci parce que da lay wóor bu gàttee nit tëb ko loolu jikko la éducation la ñoom dañ leen a yar ci yar bu pour ñun nit jomb pour ñun nit jomb naa tëb fii jomb jomb boobu nag nga xam ne moom la ñuy xalaat ci ko war a tëb kan ne ca diggu géew ba moom la war a am respecté ñi tax ñu ñëw amateur dañ koy respecté parce que bu dul amateur doo fa amateur dañ koy jox cër bu dul moom doo ñëw kilifa yi ñëw ñëpp ñëw Sénégal ñëw teew ki tëgg làmb ji xëy na du promoteur professionnel mais def na lu jafe ndaxte tëgg na ko ci moment boo xamante ni ca dëgg-dëgg làmb am na problème xaadim ñëw tëgg làmb ji làmb ji neex ñëpp toog di seetaan mu civilisé ñëpp correct ñëpp kontaan mu jékki-jékki rek mu mel ni am na benn làmb daal dafa doy waar. benn dama gis gis ay dof yu dàqante. waaw ñun ñu lu la dal. <laughs> comprendre ma. yow tey euh, en tant que kilifa wala ku yàgg si làmb macha allah yàlla nga a yàgg euh, lu mel nii bëri na fekke nga ko moom sa am ci làmb waaw quand nag c'est pas la première fois xëy na première fois la ci ci biir géew ba ay mbir xeex su ko war a bëri mu di toog di xeex di du sànnantee xeex yow fay naan la pour nga xeex doo taxaw ci xeex bu légal bi mais daana am quand même làmb mus naa toj làmb toj na fi ay yoon yoon kon li mooy làmb ju toj. li mooy làmb ju toj. supporters yi ñëpp jaxasoo. ñëpp jaxasoo ñu yenu sees yi dagg yooyu yëpp mu ngi ci keroog yéen a ngi wane ay sees yu ñu toj. làmb ju toj noonu lay mel ah. amoon si ak ñàkk jar yi ñoom ñaar ban responsable lañ am ci bésu keroog yi ba lii am ci ci li am nii. non ñàkk jar ñu zéro fat. Ah. ah oui man xam bu ma xoolaatee affaire yi. Ah. ñàkk jar ñu deful dara. loo hmm. xam nga lu mu def. Hmm. erreur yu ñàkk jar mooy ànd ak ku ku silwisewul ku yàq làmb. erreuram yëpp loolu la te actuellement nii booy bi def loolu ma nga nii tëdd ay mbokkam di bëgg ti sekk booy bi def loolu nit woon na ma ni ma grand frère am ci làmb la dee xam affaire bu garaaw la te booy mais loolu dafa garaaw nit moom moo woo wax ma ko ni ma kii grand frère am ci làmb la dee xaw ma ndax dëgg la xaw ma lu dëgg mais bu dee dëgg la na moytu li mu def keroog jaatuwul mais déjà moom mi ngi tëdd feebar actuellement ni mu ngi sonn hmm. waaw mi ngi sonn heureusement sax Aliou Seye nee na day jënd plainte bi woo naa ko ni ko bàyyi ko jaru ko jaru mu ngi koy plainte mu ne man père man damay jëndi plainte bi jaru ko seytaane moo ñëwoon keroog rek ma mel noonu may mëlu ma noonu moom parce que man moom laa def toor bi Alioune Seye waaw man la moomu jaaxal yow da nga naan Alioune Seye moo fóote yow fi foo teg loolu fi ma teg loolu mooy Alioune Seye mooy mbir mi <laughs> booy boobu du mbir mais Alioune est-ce que du daa sës sës mbir nag du sax kay loolu la ñuy wut ci nit nit nag nit dañu nit du sës boo sësee dangay dem à l'extrême bi mu sësee ci la dem à l'extrême bi mu demee à l'extrême ci la affaire bi yàqu extrême mooy mu xeex yàgg na noo sotti nit ay sunguf man fekk naa làmb joo xam ne waxuma la mbër bi ngay bëreel mais keneen koo bëreelul moo lay sotti saafara moo lay sotti sunguf moo lay sotti ndox saafara moo lay sotti lu ne loolu yàgg na ci am mais nga lucide mbër dafay lucide nga dal boo dalee di nga gis lu ne man d'accord ma ci suspension bi d'accord naa ci mais Aliou Seye deux kese laa jox toor parce que ñàkk jëriñ bi deful dara seetluwuloo ñàkk jëriñ booy bii di xeex ak Aliou Seye ba nga taxaw fee di xaar présentation mais non ñëpp gis nañ ko ñàkk jëriñ deful dara benn na ñàkk jëriñ deful dara deuxièmement bu ñu ba naree suspendre écurie ñàkk jëriñ bi yëpp yëpp yëpp dañ leen di tooñ lu tax am na ñu ñëwoon am na ñu ñëwul ci làmb ji te bokk ci écurie ba doon ay mbër xeexunu xuloowunu ñëwunu ca làmb ja te xëy na bu dee ca ñoom am na ci ko amoon contrat signé war a bëre ñu suspendre écurie ba moom du ñëw te moom ñëwul woon ca làmb ja kon léegi suspendre nañ ko ci yoonu ñëwul kooku tam CNG il est temps mu xoolaat affaire boobu d'accord naa nag ci sanction yi mu jël yépp am naa ci sanction wu daal sanction écurie yëpp nga àndul yow sanction wu jariñu laa d'accordul parce que mën ngaa suspendre ku ñëwul ca làmb ja am combat te bu boobaa yaa ko tooñ est que sa maanaam comme tey loolu nga wax ne amu si comme li ñu def ñàkk jëriñu maanaam def ko Alioune Seye 2 parce que Alioune Seye 2 tam maanaam tiiram relikaam ñàkk jëriñu jotul relika aj nañu ko at ak équipe ba yëpp loolu yëpp boo ko dajalee loolu waa CNG dafa gaawantu quand même waaw parce que am na fi lu fi am te daawuñu koo jugé pourquoi bii am rek ñu jugé ko ci saa si ànduma ci àndoo ci déedéet ànduma ci loolu mënoon noonu def dal def nànk ba affaire bi paase mu dajale tous les éléments pour mun a jël ay sanctions mën a joxe verdict waaye affaire bi am dimanche. père ba tey mbirum ñàkk jariñu moom li am ci làmb ji yëpp aj nañu kii ak ak équipe dagg xa maanaam jël la mu desoon ci reliquat ko sinon loolu lépp boo ko dajalee yow ànd nga ko jëlee décision bi. non non man ànd naa ci décision bi li ma àndul mooy dafa gaaw. gaaw dafa gaaw lool parce que dimanche affaire bi leen na ñu jël décision loolu du yoon. waaw ñoom tam xam nga CNG des fois seen yaram day tàng. mais ak li mel noonu kër. mer non ñëpp a mer. waaw mais ñoom niroowul ak man niroowul ak yow niroowul ak amateur ñoom kuréel la gunu dénk sport discipline bu dara amee danoo war a dal. tey dawalaat une semaine doog a ñëwaat ci décision bi xoolaat ko ni bon affaire bi keroog nii la demee ñu doog a di nga jël décision à mais boo ko profité rek après mën ngaa yàq quoi. comprendre nga. maanaam kon tey su ma na kon woo ñaari parti ko seqoon ñëpp déglu leen wala. déglu leen ñeneen ñi déglu ñi bokk ñëpp. ah ba xam ni affaire bi nii la demee ñu door a jël sanction mais dañoo teel a jël sanction quand même man ànd naa ci ah ànd naa ci sanction yi mu jël li ma ànd mooy gaawantu gi rek mënoon nañ def nànk daal waaw waaye ñooñu il faut parce que ba ñu génne làmb ja xol yëpp a jeex. te lépp jeex. yow mi sa keroog yaakaar naa sa xol naqariwul trop. dafa maa métti Xaadim Samb mi sonn ci làmbam ji lu ne mu daj ko ci pour làmb ji baax ñëw nga foofu bëreeguñu sax ñu yàq làmb ji et puis li ko gën a garaaw bu doon xam nga bu doon ci public bi la jógee ñu mën a wax ñu ne fan sa club bi la bu doon ñeneen ñi wax ñu fu mu jógee ci biir géew ba ci diggu làmb ja loolu moo ci garaaw. mais mbir mi léegi am na ñu wax ne mbir yi àndal du ay maanaam daal du ñu dal ay supporter la ñuy àndal ñu leen di sotti gàllaaj est ce que supporter moo war a sotti mbir gàllaaj wala ku war a sotti mbir gàllaaj. ah ki war a sotti mbir gàllaaj nag day am xam-xamu sotti gàllaaj. waaye léegi ku la neex ngay àndal. làmb léegi dañ ko banaliser ku lu neex waaye def. mais bu jëkkoon bi doon kii toog ci day am xam mu toog ci mikaay kii yor gàllaaj day xam li mu yor kii sotti soow day xam li muy sotti. waaye léegi n'importe qui sa benn waaye ngay woo rek mu ñëw mu defal loolu yëpp te loolu yëpp baaxul moo tax ñu bëri loolu leen ci gis ñu bëri ci biir làmb ñu parce que xamuñu ko ba pare di ko def gis nañ ci ku wax fan dafa xaw a wóor di xaw ma ko doon toog ci benn cumukaay ban mbir xaw daal waaw yooyu yëpp mi moo tax nit ki de nit culture dafa am aada dafa am te nañ ko respecté boo respecté wul aada lu ne mën na la cee dal waaw na ñuy respecté aada xam fi ñu jëm respecté lu ñuy def xam ko làmb dañ koy jox cër làmb boo ko joxul cër mu mu mu def la lu garaaw làmb dafa garaaw waaw. tey li am xas na am ba pare li ci suñu kanam boo amul loolu ci loo ciy xëy waa làmb ak ñi nga xam ne ñooy supporters yi wala ànd ak mbir yi loo leen di wax ñu ñëpp. CNG amateur communicateur mbër fans club ñun ñëpp nañu dal bu ñu dalul rek dinañ yàq. dañuy wax rek eh làmb yàqu na nii làmb de làmb du làmb ji ñun ñoo yàqu làmb ji du yàqu làmb ji fa mu ne lay ne nit ñi di ñëw chaque dimanche di bëri léegi chaque dimanche nit ñi dinañ dem bëri ji engouement ba ba léegi gis nga làmb boo nee làmb ba du changé ay bëgg noonu làmb ji nangam nang waaye dara bu la bu làmb tëggee ñëpp ñëw waaw kon nañ ko respecté jox ko suñu cër ñu ngi respecté yeneen discipline bu nu mel ni footballeur yi bu ñu mel ni ñuy amateur supporteur football yi nga xam dañuy jamante xaañante lu ne ñu daj ko ci seen football boobu imagine li am keroog championnat bu amoon ci làmb bindkat yi bind nañu bu yàgg làkkat yi français yi làkk nañu xas nan lu ne tuumaal nan mu ko tey jii ci ñoom la dégg leen ko xam ñun waxuñu leen dara faale wuñ leen sax faale wuñ leen sax te du def nañ fi loo xam ne ñun bu doon ñoo ko def léegi saa woo ubbee journal gis benn professeur wala benn consultant wala <laughs> ñu bari wax ñooñu tubaab yi <laughs> ñoo yooyu sonal noo ki wax waaye bi ci ñoom la dal est-ce que wax nañ ci moo di objectif nu feebar kay amul feebaru nit ku ñuul ak feebaru nit ku weex amul feebaru footballeur ak feebaru mbër feebaru sport moo am sport bi ñoo feebar bu football bu football bi amee problème sport bi ñoo feebar bu làmb amee problème sport bi mooy feebar mais am na ñoo xam ne du wax mukk ci si war a wax làmb rek la ñuy parce que ñu ci bëri tamit ay complexe la ñu xam nga bëgguñu sa téere yeeg bijjën yeeg gàllaaj yeeg yëfi ngaaka yooyu waaye yëfi ñàng yooyu oh je garde c'est fou là fi ma jeexal ak yow mooy dafa am combat bu mag bu taxaw ñaari combat la sax mu ne njëkk muy Ama Baldé ak Modou Lô waa kër Luc Nicolaï ñu ñaan génn fa mu nekk am na ñoo ci côté bii joñ doomam am na licence combat bi day am ak doomam raay ba ñu dégg mu ne moom combat bi fekk liñ defe naa li bokk nga si ñi ko gën a jege ci Sénégal tey waaw raay raay wax yi muy wax yëpp xam nga lu tax mu koy wax raay daa bëgg lépp raay bëgg na lépp te raay mënut a comprendre lépp nekk ci kaso bi ba pare di bëggal nit ñi pour moom raay nañ ko génnee léegi nañ ko génnee buñ ko génnewul du bëggal kenn moom foofu lay waxee xale bi doomu Luc la sama doom la Wily c'est mon fils maa ko ñaanal jabar waaw maa ko ñaanal jabar yu bari man maa ko def si ñu ko yar laa bokk xam na bu baax man xam naa waaye pour am audace bi bàyyi bi am charisme bi ah responsabilité bi nekkul ci Wily Wily xale la te xale bu toll noonu bu tëgg mën mën a ñëw gérer lamb ju toll noonu mënta ne man li may xalaat rek mooy ñu dal ci problème mu lutte tey tàllal suñu loxo tey ñaan waaw parce que comme que yoon moo ci def lim ci def ñu def ci nànk ñu bañ a def benn signature contrat bañ a def benn manifestation bañ a def dara te ànd ak yàlla tey toog di ñaan yàlla yàlla teggi ko loxo te man gëm naa ne bu ñu defee loolu yàlla dina ko teggi loxo te ñu ñaan ñi nga xamante ni ñoo di ay kilifaam ñuy kilifay yoon. lu nu mën a def rek ci ñu baal moom ñun nanuy baalu rek waaye buñ ko bëgg bu ñu imposer dara. Euh, organiser ci ginnaaw yooyu àndu ci daal yow. non non man àndu ma man man léegi laa bëgg mu tëgg làmb ji mu génn mu ñëw mu tëgg làmb ji man loolu laay ñaan yàlla. kon su ma déggee bu dul liggéey pour yow làmb ji a am dina jafe waaw dina jafe sans lutte dina xawa a compliqué quoi dina compliqué waaw. tey Modou Lo ak Ama Baldé ñaan nañu yàlla lig génn mais bu ñu demee ba loolu am na tam kon ñaari mbir yi moom dina métti seen côté daal moom de. waaw mu bañ tëgg làmb c'est pas la fin du monde yàlla ngeeg yeneen yu mu ko dencal nattul bii la boo nattu la yàlla bu mu lay teg ah am na ñeneen ñu mu ko daan teg te moom daawu ko teg tey bii moo aye ku nekk ak sa bis. waaye won sa moom moom moo aye yàlla teg ko nattu na ko toog mu muñ ko